bëggoon indi comme tontu mooy euh, démb dañuy rappeler déjà les faits démb waa euh, coalition Diomaye Fay comme sénégalais yépp dañ demoon pour faire respecter euh, lu ñuy wooyee le calendrier républicain demoon itam pour ñu libérer suñu coordonnateur maître Ngagne Demba Touré président Ousmane Sonko ak le candidat Bassirou Diomaye ak yeneen détenus yu nekk actuellement ci prison yi donc bu ñu demee yéen ñëpp je pense

bi nga xamante ni moo jógee ci organiser manifestation moi FDD euh, ñoom dañ ni c'est les acteurs bien identifiés comme organisateur bi ci boppam nee mon identifier na acteurs yooyu et que moom dina euh, intenter certainement wala dina introduire une action euh, en justice pour lépp lu jëm ci yoon ak ak li ci li ci top manam ñoom ñu def ko je pense que ñun lu ñu mën def au sein de la JPS et de la coalition Diomaye Je rappeler militants wax programme politique déjà coalition Diomaye programme politique euh, li ci dess nan lañuy sénégalais euh, sénégalais bi bi bi bi mu ci programme les Sénégalais, ak nan les def pour jaay suñu candidat euh, surtout continuer de dénoncer le coup d'état actuel

Sénégal carte électorale Nous carte électorale mais résultats électoraux yi bu géographiquement xam nañ fu président Ousmane euh, Sonko diar <laughs> Razia moo fa am euh, dégg nañ Ousmane Sonko lu tax ñëwul sama donc bu ñëwee ba voulons créer une dualité artificiellement entretenue parce que la dualité est il faut que am lu asymétrie des puissances donc nous, nous, amu fi amul asymétrie des puissances donc am na ñu bëgg créer bipolari bipolarisation ak dualité pour mën a dund donc comme ñun loolu comprendre nañ ko patriote nañ def nañ nañ nañ focus et président Ousmane Sonko saa mu nee focus moom mooy moom mooy rupture ñu war a indi fii Sénégal pour changer dëkk bi mais li ci des yëpp euh, je pense que euh, c'est pas c'est pas c'est pas important et ñun JPS duñu ñu double bouton di ñëw di répondre à l'actualité politique euh, ñun actuellement luñ tal mooy nan la ñuy def pour fàtt fépp fu Macky fu Macky changé rek ñu fàtt waaw incha allah loolu moo ñu loolu moo ñu war merci euh, Mbaye Mbow